merci Aliou gars baax na euh, salaamaaleykum Sénégal comme ni ngeen ko teewloo léegi ci nasaraan Aliou Sané wax na ko <clears throat> xafoor njëkk na ko junju li waral ñu woo taskatu xibaar yi tey jàkkaarloo ak ñoom mooy ne bi président Bassirou Diomaye fay faloo ba léegi Y'en a dafa ne réew mi tolloon na ci dayoo boo xam ne defar ko du ñaari fan du ñetti fan te nguur gi ñu fal bees faw ñu may leen temps pour xam fa ñu jëm faw ñu may leen temps xool ban direction la ñuy jël pour jëmale fa réew mi surtout que premier ministre defagul sax déclaration de déclaration de politique générale pour sax ñu mun am une visibilité wala une lisibilité que fañ nam ma yóbbu réew mi looloo waraloon ñu né dañ leen di bayyi ñu doxal ñu xol ñu observer ci bir doxal ak xol bobu nonu régime bi mën nañ leen baal ñu def erreur ci ben priorité économique mën nañ leen baal ñu def ben erreur politique mën nañ leen baal ñu jël leneen def ko ne mooy priorité mais mënuñ len bal mbirum justice mënuñ len bal mbirum politico judiciaire mënul nek c'est impossible c'est impossible on doit rendre service à ce régime tous les sénégalais parce que ñun ñep dañoo cotiser d'une manière ou d'une autre pour que ces gens-là accèdent au pouvoir Nous, dañoo ñak sen bakan ñi dañ ci jëlé lago. ñii dañ cee tëdd kaso ay at kon loolu noonu mënul nax saay pour ñu delluwaat ci situation boobu noonu di ko dundaat dañu ne délit d'opinion liberté d'expression du wax lu la neex ak nu mu la neexee ak fu mu la neexee du wax yëkkati ay kàddu ñaawal ko ci ay doomu aadama ce qui se passe aujourd'hui ci réseaux sociaux yi yàq der waxante lu boon ndàngama ndàngam loolu bokku ci liberté d'expression te loolu bu amee yoon war na ci àddu loolu nangu nañ ko d'accord nañ ko mais dans le régime B, donte c'est les mêmes juges qui sont là c'est la même loi qui est là c'est la même police qui est là mais bataille, système judiciaire bi chancellerie bi procureur répond aux ordres du ministre de la ministre de la justice ministre de la justice du gouvernement procureur jox ordre de police mais là le ko c'est impossible mënul nekk on a même vu le ministre de l'intérieur qui défendre lu la loi Ousmane Gom qui interdit systématiquement aux Sénégalais de marcher dans les postes poste dans jëm Cap Manuel vous mu dolli ci ne moom bu que manifester place de l'oblis, place de la nation mais loolu fan la ko fan la côté. Il y a même pas neuf mois on faisait une marche pour la libération de Alusane et de Ousmane Sonko Nous demandions à le faire à la place de la nation Macky Sall nañu pour les travaux du BRT mun leen am bërëb bi ñun ñëpp ñun ñëpp ñu génn ne lii du yoon ñu kaas ko mais depuis quand ministre de l' intérieur moo ñuy tànnal fan la ñuy marché ak fan la ñu war a taxaw ak nan lañ koy kaase pourquoi ñuy interdire à l' opposition de marcher pourquoi ñuy nëbb le dossier bi nga xamante ne conseil constitutionnel génne na ko pour ces élections là ba heure bu mu leen neex ñu publier ko c' est fausser c' est fausser le jeu ils en ont subi les conséquences, nous. Donc, on ne peut pas permettre à ce régime de rentrer dans ces dérives-là. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, nous ne l'accepterons pas. On ne l'a pas accepté sous Wad, on ne l'a pas accepté sous Macky Sall. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'accepter. Sénégalais, yep, c'est une bébête, c'est une yéné, c'est une bug bug, moi, régime, bi réussir. Si nous réussirons, moi, c'est mon noflay. fly je te dis, juróom-ñeenti weer a ngi nii ma nekk ci sama jàmm bu pensé que li ñuy def daf ñu vous pensez que dañ am jot di génn di wax ko leneen mais l'heure est grave l'heure est grave et puis même si c'est la même justice qui est là même si c'est le même système qui est là waruñu que nangu ay nit sur la base dafa am luñu parce que nak liberté d'expression du wax lu la neex ak num la mais bo jappé nit ci ay cadre ko mais bul retour de parquet Woko, enquête ko des preuves. preuve nga une ko su indul preuve nga bu un procureur procureur yóbbu un flagrant délit parce que qui nous def dafa l'air, c'est un flagrant délit Koku ken war ci ken instruction Benen bi un homme politique engagé dans les prochaines élections législatives à quelques semaines de la campagne nous wo un ci ay délit d'opinion ay diffusion de fausses nouvelles mais division de fausses nouvelles, délit d'opinion, voilà, voilà, Depuis quand contredire les chiffres d'un Premier ministre est un délit au Sénégal Depuis quand Qu'on le dise, depuis quand Contredire les chiffres de... à ah, sa, conférence, il a dit j'ai toujours contredit les chiffres de Macky Sall. Après aujourd'hui, nous avons parce qu'il va contredire les chiffres. Mais c'est une opinion d'amour là. Il faut que notre démocratie souffle il faut qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait une presse libre, il faut qu'il y ait une société civile, il faut que les gens voient seen mais nañ ko wax ci nous mu war a ko wax ci anam que les gens respectent les gens ça c'est un appel que je lance solennellement à tous les Sénégalais respectons-nous nañu bàyyante yàq der nañu bàyyante waxante bu ñaaw nañu bàyyante uñante yenn suture yi tey waxante dëgg nañuy waxante dëgg te bàyyi caaxaan bi que la presse prenne ses responsabilités Oh, presse presse il faut faire les assises de la presse pour que presse bi waxtane sen biir xam le problème qui gangrène dans leur domaine opposition bi la même chose société civile bi la même chose gouvernement bi même tâche. parce que loolu lañ leen sante dañ leen leen te les chantiers sont énormes les chantiers sont énormes les chantiers sont énormes et sincèrement en tant que sénégalais je suis de tout cœur pour que nous ñu réussir c'est mon souhait parce que mooy sama jàmm yaram mooy sama noflaay mooy noflaay kulli sénégalais yàlla nañu réussir seen seen seen mission parce que bu ñu ko réussirul dañuy nekkaat ci mbedd mi di xeex parce que loolu suñu ADN la suñu deret la nekk dañuy xeex ba keroog ñuy jëm ndox ba ndox di jeex parce que loolu la ñu gëm y a même pas neuf mois on était ensemble ci sur le terrain di xeex pas pour que ñoom ñu accéder au pouvoir mais parce que problème yi Macky Sall tegoon sénégalais yi moom lañ doon xeex ñoom biñu accéder au pouvoir ñun delluwaat nañ ci suñu li ñu xamante ne moom xam muy suñu combat citoyen moy défar ay école moy changer ay espace libre moy waxtaan ak maire yi waxtaan ak député yi dem ci gox goxaat yi ñun loolu lañ bëgg di def tégal suñu projet teg nañ suñu projet Caribou ci yooyu lañ bëgg di nekk ñu nekk ci ay yi ni waxanté yii nii nii vraiment c'est dommage mais c'est une ça a été une décision impopulaire que d'arrêter des gens comme ça à tout bout de champ sur des lois yo xamante ne nii c'est liberticide d'accord uñu ko monsieur le gouvernement d'accord uñu seen décision yi ngeen jël et vous verrez vous-même que c'est la décision la plus impopulaire bi ngeen jël bi ngeen ñëw ci nguur ba vous l'avez constaté moo bu ngeen bàyyi ñu dem c'était une erreur te bu leen ko répéter les Sénégalais sont là réduction des comptes oui képp ku sàcc alalu Sénégal dañ ko war a jàpp ñu luubal ñëpp jàpp leen leen amul ben Sénégalais bu ci am lu mu wax leen leen xam nañ leen rapport yaa ngi fi sàcc yi ñun ñu xam xam nañ leen du ci wax au contraire on va applaudir mais boum nek chasse aux sorcières boum nek diou, diw encore une fois c'est pas pour Cheikh Yirim ce c'est pas pour Kader c'est pas pour Bouga. Nous nekkuñ ci ay personnes Dembou dëkkale won nañu barki dembou dëkkaloo woon nañu ñu Macky Sall démb ñu dëkkal ñu Pastef tay buñu kenn keneen parce que du ñun du ay problème nit c'est sur les principes on reste sur les principes et on restera sur les principes quoi qu'il advienne quoi qu'il advienne te ñom ñoo la ko gëna xam ce régime en face ñoo la gëna xam ni ñun on restera sur les principes et qu'on on sera là on restera les vigiles de cette démocratie on veillera sur notre démocratie Ken du salfagne. Ken personne personne là, wax du sur une démocratie on sera là et que il faut nous clair donc gaï, watan waxtaan bi loolu la mais alhamdulillah, tout est bien qui finit bien on espère que nous jël les leçons de cette décision impopulaire nous ñu que d'arrêter les gens à tout bout de champ pour des lois liberticides yo xamné ne ñun ak ñoom dañ ko bokk diko combattre barki demb kon loolu nañ ci baye xel ñu djublu ci urgence sénégalais yi ci urgence sénégalais yi nak ñepp ci dawal compréhension sénégalais bo gis fépp ngi metti ku nek sonn nga mais ku nek xam nga né juróom-benn weer quand même mëno té critiquer yenn critique yi nguur ñepp xam nañ ko il faut il faut être raisonnable ku koy xaar ci ñun do ko gis parce que on est raisonnable on est raisonnable mais on est patient notre patience n'est pas moo ko des questions de liberté ça on ne l'acceptera pas parce que les questions de liberté aussi bien que les lois soient là et restent et demeurent Bassirou Diomaï, son premier discours il a parlé de lanceur d'alerte que demain, ciy def une une loi ni am c'est un autre pas vers les libertés def assise de la justice ni jox un rapport Nous ñi amaat Yakar,

nañu nañu bàyyante xel ñun Sénégal ñoko ko suñu rew nañu bayyi di defante yu ñaaw di waxante yu ñaaw ça nous avance à rien TikTok c'est un moyen qui permet aux Chinois de développer ay intelligence mais ñun on l'utilise pour yak ay doomu aadama c'est pas normal et je dis à tous ces gens-là qui prennent la parole dans l'espace xol leen li ngeen di wax set leen li ngeen di wax seetantal leen ko nit mëno tok tal sa caméra di wax lu la neex ci deru jambour c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut que ñu xolat suñu taxaway mo xam chroniqueur nga moo xam rappeur nga nañu bàyyi di wax lo xamni du deug te teguñ ko fenn parce que nak ku fi togn loi dalay teg dalay dalay daan c'est ça la la loi elle est là elle est impersonnelle la loi est là pour ça donc loolu la ci bëggono wax de manière ramassée di wax né ñi ngi xaar seen ay ay questions ñu ngi koy tewlu jërë ngeen jëf xafoor merci jërëjëf Thiat euh, jarul tënk leer na leer na nañ ci waxtaan bi li fi jëpp mooy y a un besoin fondamental de réforme